yaa ñu waxoon nguur kenn du ko jox majorité sama sa kàddu yaa ñu waxoon état foo ñu koy saytu mbir yi leer sama sa kàddu ñoo jëm ci ay jongante ñu koy wax élection législative mu nekk élection yoo xam ne nii élection yu am solo ci askan bi dañu war a dem tànn ñi nga xam ne nii ñooy représenté askan bi ca assemblée nationale

seen investiture ngir am ñu ñu jiital parce que dañu yaakaar ne ñooñu xëy na ñoo am position bu baax pour ñu jall lolu yëpp nak yaakaar la yaakaar moko lan ah yaakaar nak ñaan mo koy gunge am nañu yaakaar waye yaakaar bi say ñaan mo koy gunge donc lolu motax ñu ñëwit nak ci béréb bo xamante ni ñoro département bu am ay jafé jafé du ñu fi nekk xëy na di liste jafe-jafe yëpp waaye jafe-jafe yooyu bokk na ci lu jëm ci wàllu mbéy mi parce que ñëpp xam nañ ne béréb la boo xamante ne nii mbéy daf fi am doole waaye it boo fi nekkee di béy te jàppale wuñ la niñ la war a jàppale na ko war a profiter ni nga ci war a dundee doo ko dunde te ki béy day dundal boppam di dundal askan bi donc koku dañ ko wara jappalé ñu ngi dégg sax euh, béykat yi di wax né euh, ñom day reen bari nañu ngooñ waye amuñu gerte lolu liko firndel modi di semence bi ñu leen jox mo baxul donc lolu buñu amé député bo xamné ni fi fii la jógee donte député biñu fi falit du rek lay représenté mais Sénégal yépp lay représenté waye su féké ne fi la joggé mu am fi am ay jafé jafé

ba nga xam ni ëllëg danañu mën mëna permettre ñu di ci de façon très digne donc lolu yit su fekkee né dem nañ ba tànn député bi nga xam ni moy joggé fi dana am taxaway bu mu ci am ci assemblée nationale. wayé li ëpp solo mo di lolu yépp pour député bi nga xam ni moy joggé fi war ko taxawu mën ko taxawu il faut ñëpp japp ci. Manam, il faut ñun au niveau de la coalition yi nga xam ni ñoo bolo nek ben té fi liste bi nga xam lañ fi votel moy jàmm ak njariñ liste bobu ñu votel leen ba ñu ñi nga xam ni lañ fi investir ñu mën jàll. parce que su ne dem nañu assemblée nationale te wuñu li ma fi wax yëpp duma né duñ ko mëna défendre wayé du yomb bu ñu démo nit ba majorité défendre ko ci lay gëna yombé yombe yit benen bi. Maudit, Ngour, ce sunu borom rek pouvoir absolu Le pouvoir bo xam ni ak pouvoir bo xam ni lumu wax la pouvoir de ni numu mu la Waye ñun doomu nous Le dafa jaadu ñu am contre pouvoir Manam assemblée nationale bi mu nek contre pouvoir bo xamné ni bu exécutif bi démé ba wara am numu mu doxale mu mengowul ak ni askan bi bëggé ñu taxaw ne ko du nonu askan bi li la bëgg donc loolu nak pour ñu mën ko doxal il faut it ñu am taxaway ba au niveau de l'assemblée nationale ñu am fa majorité donc loolu yëpp ay yéene la loolu yëpp yaakaar la te loolu ñaan seeni ñaan moo ñuy gunge ba yéene yooyu ak yaakaar yooyu mën a mottaliku ñu nekk ci dëkk boo xam ne nii ñëpp bokk ñu nekk ci langue politique boo xam ne nii dafa war a dal li ñuy ñaan mooy ngeen ñaanal ñu ba élection yi ñu jëm ci ak jàmm campagne bi ñu dugg ci ñu ngi dugg nañ ci ay na am na yu ci xew te loolu jaaduwul loolu bokkul ci politique booy def politique da nga ko war a def ngir askan bi li ngay def ngir askan bi waroo ko def ngir violence parce que su fekkee ne yow dafa am sa euh, euh, sa sa sa sa xalaat nga am sa sa sa vision nga ne lii day moom nii laa xalaate jàppale askan bi keneen bu amee beneen xalaat bi lii leen nekk li war a nekk seen farata mooy ku ci nekk défendre sa xalaat ba askan bi jël xalaat boobu jàpp ni yow xalaat bi ngay defar moo défendre moo gën donc warul anam waroo mën a am violence. ñu ngi leen di ñaan ngeen ñaanal ñu ba ñu dugg ci ak jàmm ci campagne bi dugg nañ ci ñu ngi ci waaye ñu.